RTV Dakar yéen ñi aboné gul aboné leen gaaw bu leen fàttee bés cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di jot suñuy vidéo jàngeen jëf. bu boobaa raccourci yi nag foog ñu utiliser ko moo tax am na ñoo xam ne soxlawuñu jaar fi yonent yi jaar pour servir li yonent yi daan servir parce que ci raccourci yi lañ leen di jaarale. parce que jamono mayu leen ñu jël temps boobu ba tax ngay gis ko nan diw fu mu jaar suñu cheikh laa dégg mu ni di nga dëkk ak nit fukki at nee boko boo ko xoolee ci rythme am daram changé daan sol lay sol la mu daan lekk lay lekk ni mu daan doxee lay doxe donc pour yow dara changé wul ci moom te nee na bu ngeen amee fukki at nga yëg ne rawee la fukki at nga naan fu mu jaar waaw ba tax na alquran ñaari branchement lay branché yonent bi branche bu njëkk bi branchement bu njëkk bi mooy al zikr branchement wu ñaareel bi mooy al kalima wala al lisaan xamuloon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril du ñëw rek indi wax yu bi nii rek mu wax ko noonu déedéet parce que ba lañ ko koy wax kalimaat yi alfaad namusiye yi moom la ñuy gravé déjà ci lawxul mahfuudam ba noppi اللوح المحفوظ الاصغر بجلي موميتم انرجيم تي اللوح المحفوظ بو ماك بي بون غرافي الفاظ ناموسيه يي با نوبي نا سوكو كو انتربريتال نزل به الروح الامين على قلبك اوكي دابور بوبو موي جور ذكر بي تي موم مو ديغلو كين ديغلو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بو فاز بوبو باري نك ني سوكوكو انتربريتيل تي باتي موي فا انما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين مو جيلي كو تي فيرب ساكري يوبو كو تي فيرب سوبليمي واو نو انتربريتيكو waaw loolooy tax ñépp mënuñu yem ku ne am na lu la yàlla sédd lu mu séddul ñi ci des mais bu fekkee ni dañu wax ne hal yastawi alladina yaalamuuna walladina la yaalamuun ñi xam mënuñu yem ak ñi xamul mais alquran ni ci charte te moo di ki xam nangoo jariñe ki xamul nangoo jariñu fekk jariñe ak jariñu amul xam-xam amul ki xam na nangoo jariñe ki xamul na nangoo jariñu fekk ñaar yooyu di am xam-xam am na

ak ki yónni boppam billaay ñoo lakkal ñëpp wax na dëgg nga tan nak ndax yow ki yàlla yoni mom ngay tan wala ki yoni bopam ki yàlla tan ci bir mbolo bobu yalla ko waxal bopam wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lal khayrat nee na am na ñoo xam ne la ñuy wax nit ñi du ñoom mën ajran wa hum muhtaduun du dëgg donc ki nga xam ni yàlla ko préparé formé ko parce que li nit ñi dul xam moo di yonent tebul tëb rek ñëw juddu ni ñu ni yonent la mu jeex yonent bu nekk balaa ñëw ci àdduna ñu di ko nommer ruuxam danañ ko yóbbu ci karce ba mu solu fa soldat bu ko defee formation yi mu war a def yépp moom ruux bi ñu defal ko ko foofa bu pare ñu yóbbuwaat ko parce que nekul lu électif mais lu sélectif la maanaam yalla du xey xey rek ni tànn naa diw bala mu lay tan critères yi war a ci yow dajé ci yow loolooy tax ki yalla yoni donc bu ko joxee prérogative yi mu ko jox yëpp ta jëlee ko ci bopam nga toog ak keneen ku nga xam ni wóor na la ni yàlla yónniwu ko moo yónni boppam ñële wax nañ la ni matan yahduuna bi amrina wa awxayna ilayhim fi ala alxayrat mais am na aimatun yoo xam ni yadcuuna ila annaar wa yowma alqiyamati la yunsaruun yàlla nee na am na yéen ñeneeni gidd yu nga xam ni ku leen topp fu ñu teere ji nga teere ji fa te wóor na ma ni duñu teere ji lu dul safara te yàlla nee ni ku yegg ca safara booba wut wàllu nag lu mu sotti ñu ne kon nag nit ki mooy seet ba xam wolof moo koy wax ku demul àllarba yonent yàlla Moussa da ngay mujj dem dimanche yu faraaw na tax sunu borom ci alquran moom mii gis yëpp ba gis scénario yi ni muy demee muy melal ñi nga xam ne ëllëg ñu ngay màtt seen loxo yow ma yaaddu zalimu ala yaday ndeysaan yaqulu yaa laytani ittaxadtu maa rasuli sabila yaa waylata laytani lam attaxid fulanan xalila yàlla nee na maa ngi janloog ñu nga xam ni ëllëg dañuy mattu rekk di wiccaxu woo leen laajee lii lan la ñu naa ah, wallaay waaja rëcc na ma wallaay bu ma yëgoon du rëcc ni diw mi ma ko jënde de jaru ko boobu na xaar ba ëllëg nga di ko soog a def jaru ko danga ko def fii xam ku ko jar ak ku ko jaru waaw looloo tax ñu wax ni kon nu nubuwa mën nañu ni cadeau bi gën a cher moom la asamaan yëkkati may ko suuf mu di cadeau bu nga xam ni nag ni mu neexee noonu la jafe waaw lu tax loo gis rek am na safaanam min kulli shay'in xalaqnaa az-zawjayn waaw waaye ci biir loolu itam du tax nga xaabaabal ba mu jeex parce que yàlla dafa am yu mu bind ci shafaiya am yu mu bind ci witriya yi mu bind ci cha mooy li ngeen di wax naan ma julli gee ba noppi julli shafaak huit heures shafaak huit heures mooy lan parce que yow li nga ci xam rek mooy shafa bi mooy ñaari ràkk yi huit bi mooy benn ràkk bi mais yow loolu rek nga ci xam mais yàlla yi mu bind yëpp dafa am ñu mu bind ci shafa yi nga xam ne dañu am vis à ak yu mu bind ci witri ya dara du taxaw ci seen kanam بودي نيمو بندي كي شفعية دن لن دوغل كي واحدية تكو واح واحد واح اثنان واح ثلاثة مي عم يوغا خمني كن دو لن دوغل كي واحدية كي أحدية لن لن دو قل هو الله أحد ما تنيا ين دنيا أم نولي ما تنيا ننتي نون لسن درجة يأبنتي ñu dugal ko ci alxuruful abjadiya waaw waaw alif ba jiim daal haa mais ay chiffre la alif bi mooy benn baa bi mooy ñaar jiim bi mooy ñett daal bi mooy ñeent haa bi mooy juróom noonu mu mel noonu la daraja yonent yi surtout ulul azmi min ar rusul noonu la seen daraja ëppante nuux moo moom alif bi ak li moo tax mu daj li mu daj xam nga ni ko am junney at di woote te kenn wuyuwu la rabbi inni daawtu qawmi leylan wa naharan fa lam yazidhum duaai illa firaaran junney at إلا خمسين عاما بس كبن درجة بلام إبراهيم نيو نيو كوبا مواميري درجة موسى نيو نيو جوحكو جيم مواميتي درجة عيسى نيو نيو جوحكو دال مواميتي درجة سن شيف رسول الله Mohamed ñëw ko mooy nekk le patron ñu jox ko ha mu moom juróomi daraja loolay tax li lay jaaxal mooy lu tax aadama bokkul ci ulul azmi min ar-rusul parce que ulul azmi min ar-rusul moy les hommes de l'incarnation divine am na ñu ko wax les hommes de la volonté firi wul loolu les hommes de l'incarnation divine moy ulul azmi min ar-rusul dafa am lu len sen borom sédd ci bopam mais que mu njëkk sedd moy adam waye nak nag wa laqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya ولم نجد له عزما موتاخ بوكول تي العزم من الرسل دونك جوم تي مو جوم تي لك غرب جي مي نو خولل موم سيت لول صح ايرير بي موم ادم xolal ku yàlla sédd yi mu moom yépp mu jox la ko nga xam rek lañu waroon di mu ñaan ñu la illa iblisa aba ba mu des kenn muy iblis donc opposition foofu la commencé ci biir loolu dégg opposition foofu la commencé mais yàllaa ko def bu ko neexoon iblis du lànk mais aadama liñ ko sédd buñ ko ko séddee bàyyi ko noonu rek àdduna tukki il fallait ñu wattu wutal ko opposant ndax ku amul wujju doo liggéey du dëgg ah, ma ngoog jigéen ñaa ngi ciipatu waaye rek <laughs> Voilà, hein? voilà, mais il ko opposant mais li metti yalla moy xam-xam yim ko inculqué nga xamni les premiers élèves yi adama jangal moy ay ses premiers élèves ay malaaka lañu أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم xoolal boobu privilège dem دم بأي ملاك نيونك سألف sa سأبوزان دي لنخ pour ben fruit malheureusement fruit lañ ko tuddee mais du fruit parce que shajara bi ADN la ñu koy wax shajaratul maarifa ADN la moy ADN yi scientifique yi ak docteurs yi léegi di même ci criminologie bu nit defee dara ñu seet ci ADN bi ndax mom la wala du moom. waaw non ah. إلا بل قادرين على أن نسوي بنانا بفوف دونك غرب بي موي أدين بي تي وقت وورك لكو يالا مسني بول بول بول ولا كل جوخ ليب مايلا تي تيرم لومو مايول كان ñu sujootel la ah mu jël ay malaaka ñu njëkk nekk ay les premiers élèves sa opposant di la di la nax ba nga dem fekk lu tuuti mu yàq lu kenn xamul nu mu toll yàlla ni dafa manqué volonté te ku manqué volonté dañ lay boole ku la yar looloo tax fa talaqa aadamu min rabbihi kalimaat laa ilaaha illallah ñi defe ni rek dafa wax ay baat ni yàlla baal ko déedéet adam ñu ngi ko baale bi yonent bi ñëwee parce que il fallait que ulul azmi min ar rusul jaar fi pour jàngalaat ko te mooy seen bàyyi lu tuuti jumloo ko yàlla ni ko foog nga delluwaat ci école bi noox ak lam ko jàngal ibrahim ak lam ko jàngal muusa ak lam ko jàngal isa ak lam ko jàngal muhammad ak lam ko jàngal muy juróom ak moom muy juróom benn muy juróom benn état bi donc juróom ñaareelu état bi ñu soog ko baal moo tax suuratul ba nekk juróom ñaareelu saar ci alquran فتاب عليه simple ها mu ni wallaay jeex na wallaay ñu boole kook noox mu jàngal ko li ñoo tuddee motivation am na koo xam ni bu yenoo yeni yi war na am motivation mais motivation bu personnel moom la war a am ba noppi motivation bu bu professionnel ndax nit warul détruire amam pour profit carrière am carrière rek tax nga détruire sa am loolu la Adam def carrière carrière kot Iblis naxe ko ko ni ko sajaratul xuld wa mulkin laa yabla kooku carrière la te lii ko yàlla def moo ëpp doole ñu nax ko ba mu détruire amam ndax carrière am il fallait que nous jàngalaat ko motivation personnelle motivation professionnelle soog a ñëw naka euh, noox pare ñu indi Ibrahim mu jàngal ko li ñoo vision analogique té mo di ce ce bët di jël li nga gis bul yam ci li nga gis rek mu yobale la del nat la nek ci gannaawam lan la fa lam ma janna alayhi al-layl فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض دونك بتم جل نيمو جيس دم تكمو جيسول تلو ينغو لكو ينغ لكو أبول دولي كون فيزيون أنالوجيك بوبو موم لنيو بغون موميد مو جانغال كو آدم ñu joggé ci Moussa ñëw

wéetoo xam-xam mu wóor la li ngay wax kenn du ko wax wéetoo kattan mu wóor la ni li nga capable keneen capable ko wéetoo dogu mu wóor la ni loo dogu ni mooy am loola am te keneen amul lool mais mais mais yàlla jox la ko ba noppi nga bañ ko yemale ci sa bopp seddoo koog ñi ci des ne pas singulariser les trois verbes. Verbe vouloir, verbe savoir et verbe pouvoir. Donc singularité bangafa fa. la recette nous Mariam am voilà bi indécent ndeysaan sa góor ga lay ndeysaan ba tax de góor gu tedd ga soog a Je rasulallah ko à almawaridi wal masharib waaw te moo di naka lay fexe ba branché wu ci source yëpp parce que ku war a jëriñ ñëpp doo branché wu ci benn source fokk nga branché wu ci source yu bare pour kenn ku ne ak source ba koy ba même ndey bu yor doomam sax léeg mu nàmpale fii ba jàgg moo yóbbu ko ci beneen ween bi pour wax la donc juróom ñi ñoo defal aadam ay cours de rattrapage ba mu nangu ni nag ndeke am na lu mu télé woon ndax àllama aadama al asma moo ko ndax mu defee ne xam pour rattraper yàlla a nangu ba ñu soog baal pour wax la affaire bi yombewul noonu waaw moo tax am ay baat lan moy tax nit ñi di gis nit rek melni ni dañoo àndatul ak seen sago top te di dardari parce que bat bi ñu tuddee tasxiir ci alquran parce que nit ñi dañuy jaawale suxriya ak tasxiir bokul parce que suxriya mooy lu ñoo tuddee ben chahut wala sabotage wala humiliation moo tax bi ma nekkee ci prison bi maa ngi déglu bis benn rajo ñuy laaj benn criminologue ni base basu violence lan la mu base basu violence mooy excès de de vexation et d'humiliation nit ko vexé diko vexé ba mu yegg fenn fi wala nga diko humilier diko humilier ba mu yegg fenn fi buy tëb ci sa kaw daf lay bett moo tax ma dégg bis góor gi di ko wax fekk boobu muy waxtaan ak man ci affaire Abdou Diouf bii ak Senghor mu ne ma Abdou Diouf li mu jëfante ak Senghor gannaaw Senghor mu ne ma ñu bari dañ ko doon sax di ko xaw a sànni baat naan moom dafa ñàkk kóllëre rek ndax Senghor mi ko jox yëf yi mu def ko nii góor gi ni ma nit ñi dañoo xamul lu xew mu ne ma Senghor façon tuutal bu ne def na ko Abdou xeetu humiliation bu ne te am na ci yoo xam ne du ko ko def ci ruq ci kanamu ay nit la ko koy def léeg mu jaaree ko ci kaddu léeg mu jaaree ko ci jëfin ba ci ay colam sax parfois mu di ko ci jaar nee na mu mu mu gàddee mu ñam rek ak sagoom mu ne waaye gis nga naka la Senghor dem jox ko yëf yi rek mu commencé nee na Senghor commencé dit

moo tax nit ñu dañuy jaawale tasxiir ak soxriya soxriya bi mooy humiliation mais tasxiir sans dépend ci ku ne ni nga koy firee parce que tasxiir tabia yi dafa am ak tasxiir iraadi tasxiir tabia yi mooy li ñoo tuddee la loi du jungle nga xam ni ci biir àll bi rab yi ku man sa moroom rek jariñoo ko affaire doole la aye mais pour que ni niki wàllu nit la yalla du bëgg tasxiir bi que comme au tabia mais day nek tasxiir iradi. Moy ki nit ki nango omatu sa gannaaw ta fekk doful volonté la àndeek yow moo tax foofu tasxiir bi bu ko firi exploitation parce que exploitation kooku dafa xaw tuuti daal wallaay c'est même plus c'est même plus donc exploitation rafetoul. moo tax bu dee ci wàllu mystique yi tasxiir mooy engagement te mooy travailler niki ki vocation ba mu jëlal boppam engagement am te sonal loolu la yàlla may yonent yi ak ñi leen don mooy ku ànd ak ñoom rek yaa jël sa volonté bopp dem ànd ak ñoom ndax naxuñu la waaw waaw moo tax wa rafaana baadahum nag fawqa baadin darajat li yettaxida baaduhum baadan suxriya mais foofu ci tasxiir bi la dellu waaw moo sunu boroom bëggul ku tàggat ay nit te fekk jaaroo ci seen xel jaaroo ci seen jom jaaroo ci seen jikko parce que bis boo tàggatee ay nit ki leneen lu dul ñett yi rek mook tàggat ay xar benn la te nit

bu nit ki demee nag ba yi nga xam ni moo nite moo nite mënu koo soppi xam-xam soppiwu ko jikko soppiwu ko yiwee soppiwu ko dara ci yi ñu xame ak nite soppiwu ko bu boobaa nag nga jël beneen daraja bu ëpp jëflante ceeg moom parce que boo xoolee dialogue lu ama am solo la parce que boo liiree suuratu shuara xanaa dañ lay wan ni yonent bu ne ak na jamonoom tëddee ak ña moo amal affaire langage ba muy leen di convaincre ca la aju moo tax gis nga Moussa bi mu am lan teg Firaaw na tëjal logique logique ba jariñul commencé le dialogue bi fa man rabbukuma ya Moussa ak sunu borom moo honnête xoolal mu yónni Moussa ak Haaruna ñuy ñaar ba noppi ñu ñëw mu ni leen faqula lahu inna waxul rasula inna rasulu rabbil alamin mu tax am na ñoo xam ni lu ñu bari bari bari li ñu war a gëm ma ñoo bokk mission bu ñu tasee mission bu ku ne jël yëfu boppam rek yëpp yàqu moo tax waxul inna rasula rabbil alamin inna rasulu rabbil alamin buñ dee ñaari ñoo bokk benn bi leen fi bay an maana bani israil waaye gis nga logique bi Moussa commencé au lieu moom itam ci même logique mais moom moo commencé riposte moo tax bari na lu ñuy naan diw débat débat dañuy def débat fekk débat amul riposte moo fa ne ak polémique te am na ñoo xam ne du ñu dugg ci polémique du ñu dugg ci riposte ci logique rek la ñuy waxee ak yow dialogue ci kaw dialogue naka la ko Moussa waxee ak moom ci idéologie bu rafet boobu wax ak moom mën ko alam nu rabbika fiinaa walida ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها اذا يا مير موتا كن مسل كسلو منكو بموكو يدف سيبارسك يا مير سجيكو لاجل إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم وإفا وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين affaire ba nak meuna tukko muñ comme wan nañ ko ni amna na keneen ku mom yëf yi rek muni ni aduna tukki riposte ci kaw riposte lu Moussa wax mu wax leneen yàlla nak xamni ki kàddu bu jaddu du ko convaincre il faut que nga tek du upp fitam qala walaw jituka bi shay'in mubin قال fati به إن كنت من الصادقين rek fa alqa Firawna fëx jabar ja fëx garde du corps yi fëx yëpp ku newoon ci barab ba ñëpp fëx ndax benn yat bu ñu sànni rek mu nekk benn méga serpent xoolal ku wane ni yaay ilaahu misra ilaahu misra wa hadihi al anhaar tajri min taxti tiitar bu rëy boobu nga wax ko bonopi ben kan ñu sanni ko mu nek jaan nga dawa a daw ba fàtte say dal parce que bobo lool rek mo fa sës parce que amul logique bu ko man convaincre donc il fallait ñu utiliser beneen logique bu ko dépasser mais bu dul lu mel noonu yalla nanguwul ngay convaincre nit lu ëpp fitam ba gisee la ikraha fi diin nag afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin nag lasta alayhim bi musaytira wa ma anta alayhim bi jabbar yooyu yëpp pour bañ nga defar ni ki nga amal affaire jaam la yàlla dafa bëgg boo yar nit ki mu jàpp ni kii kat naw la la ma jàppe donte yaa ko ëpple lu ne mais teg ko teg ci sa wet mel ni yéen yem loola koy yar ndigam nit la moo tax sunu borom loolu moo ko gën saf ci yonent bi Muhammad te mooy bi mu ñëwee ndeysaan ziyaar si ko ca kaw ak yexew ak protocole ba ne yëf yee demee mu dem ba ca kaw dañ ko wan ca yoon wa laata muy yegsi ak ak manduga bi mu fa jógee ñu laaj ko ndax gis nga sa boroom mu ne anuuran aro ah. ndax gis nga sa boroom mu ne ah, xanaa loo xàmmee ngay nii gis nga ko waye leer yu ko wër mënuñu ko wër ma di ko xàmmeeti anuuran araax mais li neex sunu borom ci yonent ci bi ak yiwam mooy ma zaagal basar wa ma tara xolal complexité bobu nek ci place bu mel nonu sunu borom nek fa te yonent bi mënulaa netali ni gis na fa nangam ndax yàlla rek la tek beut waaye ku ku war ñay ba wàcc ko loo warati mu tuuti kon bu jógee fa mu jóge ñu indi ko ci baytil maqdis ak alburaq di ko xaar mu jiite yonent yi ci biir jàkka ji ñu jël ko avec escorte bi ànd ak moom ah bëtt asamaan juróom-ñaar yi yegg fa mu yegg xaaba xaw sëy na fa àddina ak ya ca des yëpp moo ñi faral di soow xamuñu sax lu xew damay gis ci gannaaw bi fi ay ciow amé ci ay affaire statue ak yu mel non am ñu ci bëgg profiter nan photo sëriñ si ñuy jël di ci ñaan di wane ni yooyu xërëm la am ñu ciy profiter ma ni seen àlluwaa sorewul rek bi ci desit mooy doxuñu fu sore parce que bu ñu demee sidratul muntaha musée ba fa la ne photo yonent yëpp fa lañ leen wékk moo tax yonent boo ci xàmmewuloo nag boo demee ci sidratal muntaha di nga ko mën a xàmmee pour wax la waaw ak baatu wa sawarakum ba ahsana suwarakum commencé ci bi gën a ba ci bi gën بتحنا كن ما زاغ البصر وما طغى عرم بوبو يننتي بي ام بجيم الخول لنن لدول بورو مم ميكو يندي مي لي غنا ييمي بي ييمي موي ابليس مو جاخل باسكو بي يننتي بي ييغي مو غاي فيت ني كوم ياخالون نا ادم تا مو جيتو كي مودجو moom lay mujje ndax fii mu dem ku fa dem boo wàccee daa gis sa bopp gis boo xam ni pour ñu yàqal la dafay yomb naka la pare bay xaar pour dem affronter yonent bi jëm di ko seeti te seeg yonent bi mu war mbaam <laughs> mu ni kii mënaluma ko dara parce que ku dem fa mu dem alburaq yóbbu la nga gis ya nga gis wàcc ba noppi war mbaam kii dara mënu ko yëngal waaw waaw bu tax wa rakiban alximaar lay ndeysaan waaw wallaay ndeysaan góor gi bi muy dugg ay taxi booba voiture yi gën a cher ci àdduna bi mu ngi mu gaara ci ay ay garage am di dugg taxi comme tout le monde waaw pour wax la waaw parce que an nihaaya hiya al ila al dem ba yegg ndongo loolu tax modestie Et ça, Euh, maintenant li ñoo laaj lu tax yonent di sañ ku gëmul mission àndu ca ñu koy may droit pour mu éliminer ko loolu lu jara seet la lu tax muy sañ mu am droit boobu te mooy ku nanguwul mission ànduloo ca nekk fa bëgg a yàqal ñi ci des ñu may ko droit mu éliminer la preuve bi c'est très simple fii ñu toog nii ci barab bi bu fi jaan génnoon rekk am ñu commencé abal ma yet foofu xale yu tuuti yi yooxu jigéen ñi daw góor ñi ne abal ma yat foofu xam nga lu tax tombe mooy waral ay gaaf parce que jaan ci liñ ko miine loram moo ëpp njariñam loolu tax fu mu génn yat génn wala leneen gis nga noonu jaan yi mel ak jiit yeeg yi mel noonu ci biir nit ñi ba fu ñu leen seen wut lu leen éliminer noonu la amee ay arwaax sharira ruux yu nga xam ni seen boroom fu ñu ne fu fa pas-pas nekk walla ngëm yàlla dana yàqu kon nag ni ñuy reyee jaan ji walla jiit ji noonu lañu leen war a ñoom itam bala ñoo yàq pas-pasu nit ñi

dimension yi ñuy dund moom bokkul xam nga li ñu tere nit yépp fii ci àdduna bu demee aljanna mu lew ko parce que aljanna la ñuy wóoloo ni lu koy bewloo amatul foofu laa laa woon fiha wala taathim <laughs> mais am na ñoo xam ni nag loola duñu xaar ba aljanna di ko soog a dund fii lañ koy dunde moo tax ida marru bi laxwi sax marru kiraama ki yar boppam ba yegg foofu am na yu mu talul fi ñëpp di dem du fa dem yi ñëpp di xëccoo du ko xëccoo te moo leen ëpp moyen yi koko yàlla xamna ni dara du ko bewlo motax ñu man ko may lu ñu mayul ñi ci dess mata khalisatan lak laka min dunil muminin tey Fatim yi bokkul looloy tax fokk ngay jàng démarche yi ma ne li ñoo tudde pôle nord ak pôle sud waa pôle nord ak la nga fa miin waa pôle sud ak la nga fa miin noonu mu amee ci sunu aalam bi noonu la yàlla séddale pôlu nubuwa jarele ko ci Ibrahim moo tax tabax gi Ibrahim tabax kaaba gi ku defe ni maanaam kaaba gi noonu rekk nit ñi ñëw wër ko ñu naan néegu yàlla la ku ko xool foofu rekk li li ngay raté day bare نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دونك كم بول نور أك بول سود نون لا كعبة كي تخيوي موميتم نك نياري بول بن بول بي نياري ركن مو في نك بنين بول بي نياري ركن مو في نك دونك نياري ركن يي ñoom la ñu séddee Ismaayil lépp luy arab génn ci beneen pôle bi moom la ñu séddee Isxaaq lépp luy ajam génn ci donc côté is euh, Isxaaq Muusa moo fa génn ak Isa mooy ñaari koñu Kaaba gi côté Ismaïl moom it ñaari koñ yi benn bi Muhammad la benn bi mooy almahdil muntadar ñeenti koñ yi passé wu ko koñ ñaari koñ yi ñuy sedde Ismaïl Muhammad ak almahdil muntadar génn ca ñaari koñ yi ñuy sedde Ishaq Moussa ak Isa génn ca Ibrahima anamu mu nga ca maqaamu Ibrahim bi ñu paree ñeenti koñ yi ñu jël alxajar al aswad teg mais alxajar al aswad lan la dañoo tudde la pierre noire ay njàng yu bare la parce que d'abord jëmmi pierre bi ak noir bi d'abord noir bi la ñuy njëkk a wax noir bi lan la firi mooy lëndëm lëndëmu jamono كم نيكو يننتي بي وخيوان أصبحت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى يننتي بي وخني دنا ني دم سي ادنا با فتنه ني ني يي ديفي امبوتياج نون لا فتنه يي دي ديفي امبوتياج تي ادنا بي دونك لندم لندم يويو موي اندي بات نوار بي تي بيير بي mais baatu Pierre bi ci boppam nag mooy bu ñu demee bax xol yëpp amatuñu yërmande amatuñu ñeewant kenn dootul yéene sa moroom lu baax bu boobaa dañuy jàpp ne xol yi mook doj yi ñoo yem cœur de pierre bi ñuy wax ak mémoire de pierre summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijara aw ashaddu qaswatan yàlla ni di ngeen dem seen xol yi di añaan di añaan ba fa raw xeer te xeer sax léeg-léeg mu rus ah ndax law anzalna hada alquran ala jabal la raahu raaytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa tilka alamthal nadribuha lin nas laallahum yatafakkaruun yàlla ni montagne bi gëna mag bu ñu jëloon alquran tek ko ci kawam mu am nu nu nu nu mu mel ci sa kanam ndax ormal alquran yow mii nit nag di sangu yëpp ñu jox la alquran nga foye ko moo tax bu fekkee ni dem nañ ba jamono yegg foofu lëndëm lëndëm yi ñëw xol yi yegg ci wow ba foofu loolu la alxajar al aswad moom lay symboliser mais xajar al aswad gannaaw alif beeg lam parce que alif ak lam bi al taarif rek la mais tour bi moy xajar ak aswad muy jurom naari haram dañ lay won ni la bu fi yonenti bi jógee ba kérok al mahdi al muntazar di new jurom juróom-ñaari aimma ñoo fi wuutu ulul azmi min arrusul asxaabul adwaari alkubra juróom-ñaari aimma yooyu war a ñëw wuutu yonent bi pour di réparer yi yàqu seen tur mu nga ca xajaral aswad moo tax ku ko woote te fekk sa tur nekkul ca xajar ba àdduna tukki yàlla dootu la may jàmm moo tax boo demee ca xajar ba aussi ñi war dugg aljanna ak ñi war a dugg safara yëpp seen liste nga fa ca alxajar al loolay tax jàng yëf yi xam ko dafay nekk farata mais ci biir loolu nag bu ñu leen nee juróom-ñaari ay may diggante imam bu nekk ak ba ca des am na ay auxiliaire ñoom dañoo tudde asxaabul adwaari sugra waaw imam bu mag bu ne war a taxaw taxawaayu yonent bi bu fi jógee balaa keneen ni moom di di ñëw dana am ñeneen ñu fi jaar ci diggante bi. RTV Dakar yéen ñi aboné gul aboné leen gaaw bu leen fàttee bés close notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jàngeen ngeen jëf.